ministre bi daanaka Tambacounda mo nekkoon deuxième état après Kédougou mais y avait eu des problèmes avec le décès de feu Ousmane Tanor Dieng moom moo taxoon tardé mais kay ñëw na tey dañ ci sante yalla bu baax a di sante aussi encore chef de l'État parce que limu unité un montant de 200 cent millions dana jàppale xalé yi dana jàppale aussi encore jigen yi ci sen cautionnement pour pour mën am ay crédit dans euh, dans le système financier dañ koy rafetlu dañ ci kontaan bu baax a baax xam nga Sénégal ji boppam. dañoo war a changer xalaat parce que buñ la jox xaalis nga ne xaalis politique la yooyu yooyu même président sax waxoon na ko ci ci DER bi ci xaalisu état la xaalisu contribuable la xaalis boo xam ne dañ koo jëlee ci askan wi pour mën a jàppale xale yi mën a jàppale jigéen ñi kon boog ñun li ñuy lancé rek mooy képp ku ñu lebal liggéeyal parce que léegi actuellement Sénégal léegi dëkku liggéey la caaxaan yi faaxe nañu liggéey bu ñu liggéey bu ñu la lebalee nga remboursé sa morom aussi jël nous loolu lañ gëm DER aussi vraiment def na fi après ay 900 millions aussi dañ ci la République nous la taux de remboursement bi dem na je ne sais pas 80%, 60%, en tout cas remboursé mais aussi nous remboursé parce que est état voilà donc man nous nous avons remboursé nous ñu aussi encore